asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa la nuyu <coughs> di la ziyaara di la baal xaq di la baal xaq ñu ñëwaat ak sëriñ Mansour si xaaj Mansour radiallahu taala anhu min cheikh alxaaj Malik fi mu yemoon ak ñun tey nag xasida gi indi day def ak ñaan di def tawassul ci digganteem ak boroomam waaw kay pour mu fajal ko ay aajoom ne yaa xayu yaa qayuumu waaliya xaali wa mujiba daawatina wa kulli su'aali nee na yow mi nga xam ne yaay aji dund dund gu sax yow mi taxawe lépp ñëpp te kenn taxawul sa lenn yow mi nga xam ne yaa méngoo sama mbir ci biir ak ci biti yow mi nga xam ne yaay nanguwaa koonu ñaan bi di wuy képp kuy laaj yow lay waxanteeg wala waxagulan la nekk yaa xayu yow aji dund dund gu sax gi nga xam ne amul commencement amul yemukaay yaa qayyuumu yow mi taxawee lépp ñëpp te kenn taxawul sa lenn waali ya xaali yow mi nga xam ne yaay aji méngoo sama mbir wa mujiba daawatina ak yow mi nga xam ne yaay aji nangu wuyu sunu ñaan wa kulli suwaali ak bépp damaane mooy bépp laaj mu mel ni dafa composé sunu borom ne ko si lan la mu ne adooka fi safarin bi xibbika shafiin naylal muna wa salaamatil awsaali maa ngi lay ñaan nga baaxe ma ma ziyaare ji tukki ci ki nga xam ne mooy su soppe bi nga xam ne mooy ajiram mu mbindeef fi nga xam ne amul mébét yëpp mi ngi yem ci moom ak it cër yi ma muccee bu mën a àgg ci moom ndax du ma ko bëgg-bëgg it yaram wéerul itam du àgg du mën a am moo tax mu ne aduuka maa ngi lay ñaan fii safarin ci tukki boo xam ne dinaa ko tukki bi xibbika ci sa soppe bi nga xam ne shafiin mooy ajiram mu mbindee fi ne ne loolu de wala adooka naylal muna ah fii safarin bi xibbika shafi wa salaamatil awsaali ak muccuk cër yi itam dégg de muccuk cër yi mooy sama cër yi itam naka tal fekki ko maa ngi la kay ñaane wa bi ahmada tijaani matlaci saadina xaawil madaya saabiqil kummaali maa ngi la koy ñaane bi Ahmad Tidiane ci daraja Cheikh Sidi Ahmad Tidiane mi nga xam ne mat matlaai saadina mooy fenkuwaay suñu texe xaawil madaya ki nga xam ne mooy aji lakk mboolem jaloora yi saabiqil yi nga xam ne mooy aji jiitu ji jiitu way mat yëpp nit yàlla yi mooy seen kilifa daal ci gàttal wal yusra wal imkaana yaa mawlal wara li su'li min wajhi rida wa xalaali nee na maa ngi lay ñaan wal yusra ak yomb yomb ci mbir yi wal imkaana ak jekku mbir yi yaa mawlal waraa yow mi nga xam ne yaay kilifa yi mbindeef yi yaa méngoo mbindeef li su ci laaj boo xam ne daañu ko laaj ñuy koy defee nag min wajhi daa ci anam gu ñu gërëm wa xalaali ak anam bu dagana dagan boo xam ne min gayri ilxaaxin ak lakkale du ci am wa iqlaalin ak ñàkk du ci am bilaa duril wara ci dul ñuy lor mi defi yaa rabbi yow sama borom yow mi nga xam ne musliha xaali yow mi nga xam ne ya aji yéwénal sama mbir sama lépp yéwénal goo xam ne nag bilaa nida xëccoo du ci am ndax inna fadlaka shaamilin kullal wara bi tasarrufil axwaali ndax yow sa ngëneel ak sa mbaax dafa matale mbindeef yëpp yëpp ci ni ñuy sopparnikoo ci mbir yi moo tax man inna fadlaka wóor ne sa mbaax sa ngëneel yow yàlla shaamilin aji matale sëkk kullal wara bi tasarrufil ahla ci soppar ñi koog mbir yi ndax yow wala xad li kulli naa min sahmihi min qablu xiina muxkamil a jaali <laughs> lii nag la nit ñi xamul moo tax dank dank bi bëri waaye buggoon ko nit ñi xamoon koy noppalu koon nañ bu yàgg xam nga kenn ku ne sa wërsëg moo la fi jiitu comme la nga dégg Cheikhul Xaaji Malik Si doon wax radiyallahu taala anhu ne wa rabbuna xad qasama al arzaqa min qabli ma qad xalaqal axlaqa <clears throat> ca niamatul afil ba ca la doon waxee ne sunu booram daal séddale na wërsëg yi kenn ku ne la nga war a buñaa la nga war a am yàlla séddale na ko bu yàgg te boobu yàlla bindagul mbindee fi moom la xaaj moom su wax ne kenn ku ne sa cër da nga indaale ndax séddale woon nañu ko heure rek lay xaar pour nga jot ci ba kon nag wattaqullaha wa ajmilu fitna wala qad xasamte gin naa ne séddale woon nga li kulli naa ñël képp kenn min sahmi ci participation wala nga ne ci ciram min qablu la jiitu xina muxkamil ajaali ci jamono ba nga xamee ne ñi ngay xereñi dig yi ne kenn ku ne fii lay commencé fii lay yem booba nga bindaale woon wërsëgam wërsëgam moom nga njëkk a bind tabarakallahu avant ñuy bindi leneen nga muy allahumma ya haadi al ibaadi wa munimi min fadlihi min minnatin wa nawaali nee na yow sunu borom yow mi nga xam ne yaay aji gindi jaam ñi di aji xéewali ma mën xaaji Mansuur lépp nag di bàyyi ko ci sa mbaax nga xam ne yaay naddilekat bi di joxe waa kon bu mag bi allahumma yow yàlla yow laay wax ya haadi al ibaadi yow mi nga xam ne yaa aji orienté jaam ñi gindi leen wa munimi ak yow mi nga xam ne yaa aji xéewali ma min fadlihi lépp min minnatin bàyyi ko ci sag naddi mooy may gu bëree bëri na waali ak may mu ne ko waa loo wax mu ne ko hablil qanaata wa siyaanata qadrama fi daari lubsi saabiril axwaali dégg nga ko mu ne ko li ma mooy diiru maa ngi ànd ak sama bakkan bi man xaaj Mansuur yàlla nag ma xéewale ak doylu ñoŋeel mooy ak aaru daal fii ak maa ngi fi nekk daal ak itam lépp loo xam ne mbooy ay jafe-jafe ñi ki tiitaangee ki problème adduna yàlla na nga may kattan ak doole lu ma ko mën a muñee moo tax mu ne hab na ma may alqanaata ak doylu wa siyaanata ak ñoŋeel mooy ak aaru xadara maa kem la nga xam ne dina ko nekk fi daari lub si ci kërug sax gi te mooy adduna saabiril axwaali may aji muñaale mbir itam tiitaange yi fi nekk yëpp yëpp yëpp yàlla nag mën a may mu muñ ko wa zuhda wa tasmira fi hadihi almatalibi kulliha wa sidqa fi l maa ngi lay ñaan nga may ma ak dëddu ak fogoru ak fogu ma ak ak ak ak góorgóor daal fogoru wala wogosu ci mboolem càkkutéef yëpp maa ngi lay ñaan nga may ma ak dëggu ci jëf yi may jëf bu ci lal ak bu ci lal rëy rëylu lépp lu ci rëy rëylu mbaa ñaan mbaa soxor ci jëf ji yàlla nag musal ci loola li may wax daal ak li may jëf yàlla bu ci dara wuute wa zuhda ak dëddu adduna wa tashmira ak wagu fi haadi lmataalib ci la càkkuteef kullihaa yëpp wa sidqa ak dëggu fi aamaali ci jëf yi maa ngi la koy ñaan wa sabra ak muñ wa taslima ak wommat ci sa dogal wa am amri ak joyal gi may joyal sama mbir yëpp yëpp jëmee ko ci yow nga xam ne du ma ko wéer ci kenn lu am rek ma jàpp ne yow la faatiri yow ma wa nujha ak yow mi nga xam ne yaay ak ak kon ak euh, am najaax bi maana ak mucc ak ak at mi fil amali ci mébét yi yëpp sama mébét yëpp daal yàlla na moo ci defal najaax mooy ak mucc daal na ma ko bëggee daal mu amee noona xata agnaytu bi ma xasamta muqannia an qasmi gayrika rabbi fil amsali dem ba ma doyloo li nga ma sedd wëlis ma fi gis sedd keneen kudul yow moo tax xatta ak nayti dem ba ma doy sëkk sëkk sëkk bi ma xasamta ci li nga xam ne sédd nga ko sédd na nga ma ko mu xanni a may aji doy loolu an xismi kaari ko wala sédd lépp keneen ku dul yow rabbi yow sama borom fil amsaali ci mbindeef yeeg kem yeeg misaal yi wa anil lada wa saxba xayran kaamila xatta rajana saliman lil iyaali moo tax mu ne wa anil lana yal nag ñu may wa sax ba ak ñii ma àndaaleeg xayran yiw kaamilan wu mat sëkk ñii ma ànd ci yoon itam yàlla nga leen defal yiw wu mat sëkk sëkk sëkk sëkk xataa rajaanaa dem ba ñu wàññeeku saaliman ñuy aji mucc lil iyaali jimaat ci njaboot ga comme nekkuñ ci njaboot ga nag tabarakallahu euh, ñu ngi lay ñaan loolu delluwaat ci njaboot ga nañu ko bëggee wal xifsa yàlla nag ñu wattu fi aynil kifaaya dégg nga maam ci bëtub doylu wax mi naa yàlla nag ñu aar min jumlatil aswaay ci mboolem ñaaw ñaaw yi wala aw jaale ak njàqare yi yàlla nag ñu ci aar wa ala nabi al mustafa azka salaati wa azka salaati daayiman ala nabi al mustafa wa sahbi summa al ali tabarakallahu téere boobu kot noonu la yam incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah